assalamu gars gay ma ngi len di nuyu di len ziar eh, di len dalal jamm ci sen eh, chaîne sama xalat eh, ci sen programme fagaru fagaru nak ku nek xamna moy lan moy fagaru mo gën faju mhm. voilà vidéo bu ñëk bi nak comme ni ngeen ko sétanon bi passé ñi ngi ñëwon ci impuissance sexuelle manam mu jëm ci lepp lu laal ci awra goor bo xamanteni fonctionné wul ni mu wara fonctionné yaakaar naa ñi sétan vidéo bi passé li ci aju yëpp xam nañ ko mo xam lu jëm ci yom lu jëm ci télé ak lu jëm ci ñak kattan léegi nag professeur dañ ñëw ak mom tay ci solution yi ñi nga xam dal na leen ba pare yeen solution lay indi pour ñom ñi nga xam ne dalagu leen nan lañ wara comporté ba lu mel non bañ leen dal kon professeur ñi ngi lay nuyu de la ziar. sëñ pap ñi ngi lay délo ziar di la ziara di nuyu mbokk spectateurs yëpp ñi nga xam ñi ngi ñuy suivre ci sama centaine sen télévision sama xalaat euh, comme ni nga waxé rek moy vidéo bi passé ñi nga wax ci impuissance sexuelle mom la def deuxième partie bi ni nga xamante ni tey ngi ñëw ci solution yi ak euh, prévention yi donc bari ñu ñëw ci solution yi ci remède naturel yi manam dañuy ñëw ci prévention yi manam lu ko nit di mëna moyto en général mais comme ni ñu ko waxé won rek moytu bi moom moy premièrement moy xol li ngay lekk déjà parce que comme ni ñu ko waxé won ci bii passé rek fi ñu ngi utiliser bouillon yi diko ko rek mëna mënaguñ ci mucc donc il faut que ñu lekk lekk gu sel benen bi nga xamanteni mo ci def moy foog feebar yi nga xamanteni mo ñuy dal nga xamanteni waxon nañ bi passé ni leen feebar yi ñoo koy joxe feebar yooyu nga fexe tamit nu moyto num lay dalé

ki nga xamanteni amna fièvre yi bo paré fièvre yo ñu leen cité loon na dem faju yi fièvre yoy ba nga xamanteni wërna impuissance sexuelle am dina dina wër té du am benn problème wala bok bu wérul it carrément bu féké fièvre yoy wérul it dina mëna wañé ko bu baax donc lool moy problème mais nak pap comme ni ñu ko waxee rek ñun Sénégal mom euh, dañu sag dañu sag na fièvre da ngay fièvre ba am 10 ans wala 15 ans nga dogu jog ci faju dañuy yar fièvre da bam dominer la nga bëgg faju donc day indi problème léegi waxoon nañ ko ci vidéo passé tamit impuissance sexuelle dafa nekk loo xamante ni eh, nit ñi duñ ko waxtaane eh, duñ ko waxtaanee mooy yow même sa xarit bi nga gën a wóolu sax en général doo ko wax donc bu ko defee nag feebar kenn olof mooy faral di wax ne feebar kenn du ko nëbb jàngoro dañ koy siiwal bu siiwee lu tax ñu ne jàngoro dañ koy siiwal bu siiwee du ñàkk nit la defal nangam ak nangam pour nga mën a wér wala nit la ah man ka diw moom fajoon ak diw moom fajoon nga dem foofu yàlla mën na jaaral foofu sa sa jàngoro wér donc kon jàngoro dañ koy dañ koy siiwal mais en général Sénégal dafa am feebar yoo xam ne bu ñu ko amee. kersa dañ ciy am. mais nag euh, heureusement comme ñu mel ni yow. ñu waaw nit ki dina ne mm. ah kii moom comme xaw ma. Mm. xaw ma fu ma bokk naa ko. naa ko contacter effectivement. ñu ko bëgg a contacter nag numéro moom ngeen gis. muy mm. daw suuf bureau bi euh, noonu moo mm-hmm. mais li tax loolu tamit. Mm-hmm. li tax loolu tamit euh, Pape xam nga feeb fajkat. Mm-hmm. dafa war a secret discret. dafa war a am sutura. waaw dafa war a am bàmmeelu biir. boo gisee tamit ñu bëri duñ ko bëgg da ngay gis nit ku faj nit naan maa faj diw ak maa faj diw or ko yooyu yooyu du du c'est pas c'est pas normal quoi waaw nit ki moom su ñëwee ngeen toog boo gisee ñuy consulté wu def consultation en général loolu la du wax da waaw ki ki ki nga xam parce que lu ne ngay gis lu ne ngay dégg mais da ngay xam ni yàllaa ko ko teg te yàlla mi ko ko teg mën na la ko teg yow donc bu yàlla yàlla mi ko ko teg ba mu am ba mu wóolu la yow yaakaar ne mën nga ci dara mu ñëw wax la mm-hmm. jàngoroom kooku li ko mën a dimbale mooy nga garder sutura loolu mu des seen diggante yéen ñaar. <laughs> sangu ko te néew waaw kay waaw effectivement waaw nit effectivement <laughs> waaw parce que boo gisee l'islam ne maandu rek nit ki dafa war a maandu même bu dul loolu dafa war a maandu waaw baaxul quoi donc feebaru jàmbur yow soo nekk ci ki am feebar ba ñëw wax la ko donc dimbale ko ci rek soo ko mën waaw waaw diw bañ feebaree <laughs> maa faj ak nangam nangam yooyu yooyu bu yàggee sax baatin bi nga doon fajee sax yàlla da koy dindi parce que yàlla dala jox xam-xam bi pour nga dimbali ci doomu aadama mais pas pour nga weer leen donc bu ko defee noonu la mais loolu tax nag ñu bëri nag ñoom dañu am complexe di waxtaane seen feebar parce que bëgguñu wax seen jàngoro ba pare nit ki di ko waxaat feneen comprendre nga waaw duñu wax donc gis nga donc waaw bu loolu baaxul te na la rey sax fekk boo ko waxoon effectivement Pape ma ñëw ci benn bu daw mhm. am na benn koo xamante ne ñoo dëkkandoo dafa am na woon jabet ndekete dafa am góomu jabet te kenn xamu ko hmm. bi mu gaañoo bañ koy sang mu ko doon nëbb bi mu gaañoo bañ koy sang la ko nit ñi doo xam même jabaram dafa naa la koy doo xam ak ay xaritam ci jour décès bi dañ ko doon xam. dañ soo xam mi ngi woon ak góob mi ngi woon ak góob waaw. mi ngi koy fexeel boo xam di ko lëmës xam nga loolu. loolu mën naa am sax yàlla ma yàlla baal moo ko yóbbu. waaw xam nga loolu moo ko yóbbu. te loolu bu ko nit ñi xamoon mën naa am. ñu wax ko ay tegtal wala ñu doxal ba ba nga xamante ni yàlla mën na ko sauver wala boog mu dundaat lu yàgg yooyu yëpp mën na ci nekk donc bu ko defee nag xam-xam jàng feebar nañ koy siiwal mhm. feebar nañ koy siiwal mhm. donc pas pour bañ vidéo bi gudd rek ñu ñëwaat ci solution yi kon ki nga ki nga waaw moom la ñuy xaar fi mu ne nii ñi mu dal prévention waaw solution waaw prévention bi moom wax nañ ko sànq sax mooy lu ñu doon wax rek cest à Eh, ki amagul feebar yenn feebar yi nañ ko moytu wala buñ ko amee nañ dem faju ji donc loolu mooy prévention bi nga xamante ni moo njëkk. mais ci wàllum bu nee prévention maa ngi ci jublu. Hmm. wàllum comme euh, lekk ak son comportement. comportement ah, waaw. waaw mooy waaw lekk yi ñu lekk lekk bu sell mooy wax naa ko sax ci bouillon yi éviter ko buñ ko mënee am moo gën. wut suñuy bouillon naturel amul ay yeneen lekk spécial am dañ koy joxe wala dara amul. Eh, non non mu lekk gu normal rek moom en général moom lekk yi rek moo ci gën a bon moom de lii noo xam ni mën na ko joxe comme am yaa ngi fàttaliku ba am feer bu ñu waxoon lu bari. di nga ko joxe waaw façon yu mel noonu tam yooyu du ko joxe. moom en du ko joxe moom yooyu moom ay toog yu bari taxa yu bari du ko joxe ay kii yu bari budul feebar yi ma la wax daal lu ci bëri moom feebar yi rek ñoo ko lu ci ëpp ñoo koy ñoo ko joxe ak stress ak yu demee noonu waaw yooyu daal en général ñoo koy ëpp ñu koy joxe moom ak lekk bouillon yi ak yu demee noonu mooy te yooyu produit chimique bu ci am euh, feebar boo xam mi ngi si yow nga bañ koo ñàkkal fayda ba mu lay jural. impuissance sexuelle nga moytu lekk yu am bouillon yu bari. waaw voilà loolu moo ci gën a nekk. même yenn médicament waaw jeunes yi ñuy mm. éviter di seetaan. vidéo porno yi waaw effectivement waaw. Mm-hmm. Uh-huh. ak yenn yenn médicaments yi yenn garab yi nga xamante ni tamit bu tubaab yi nga xamante ni en général da lay sawloo. xam nga am na ñoo xam ne dañu am problème saw. am na nag heureusement sama xel. waaw waaw mbaa mbaa ku koy ku koy jëfandikoo du la indi lay jafe-jafe non ici day indi jafe-jafe yu métti sax koy defal ci télé non yooyu baaxul baaxul da day rey sax pour nit ñi mën a xam nit ñi dafa am ñoo xam ne dañ naan leen Viagra bi ko naanee bu ñu demee di sëy ak seen soxna daf leen di gën a jox kàttan waaw c'est effectivement waaw loolu baa du dem mu jural nit ki leen di jox kàttan pour pour mu sëy pour mu gaaw effectivement loolu da loolu ñu ci jublu dañ ko ci am mais conséquence bi moo ngi ci produit chimique yi muy defaraat li muy effet yi muy bàyyi sa yaram te day dem ba léegi ne moom surtout day indi cardiaque moom bëri na ci moom. Ah, day indi cardiaque waaw cardiaque moom boo gisee nit ki jékku jàng dee comme noonu cardiaque yeeg maladie hypertension yi yooyu daf ci gaaw moom mooy. produit yooyu ngay wax pour bañ a tudd produit jàmbur mooy Viagra yeeg yooyu ah, waaw waaw daal a hmm. leen tudd parce que ñoo fiy kàtt lu xale yi ah, waaw effectivement Viagra ñu koy jaay ñu koy naan kon mais xam nga xam nga Pape mooy problème bi am na ñoo xamante ni li tax ñu koy jël mooy que comme ni ñu wax ni mën na say tas néegu sëy kooku nag day dem ba nga xamante ni amatul solution tey lu lu sauver sëyam lay wut léegi bu ko defee nag yooyu lay jël rek mu dem jël te yooyu boo ko jëlee dina baax de d'accord dina baax moom mais mën nga dem boo ko jëlee un an deux ans trois ans li nga ci soxla woon dootoo ko amati. waaw foofu laay foofu loolu idée boobu muy benn ma laaj ko ndax nit ki bu ko yàggee jël du dem ba bu ko jëlatul rek dootul mën. non dootul mën day koy gaare mais sans loolu sax sans loolu sax li ci gën a grave mooy day indiwaat yenn maladie maladie cardiaque da koy posé da koy indi lu gaaw sax da koy day indi maladie cardiaque yu gaaw. donc moo tax mooy feebar xol. feebar xol moom ay crise cardiaque yu demee noonu donc yooyu yëpp dafa indi. donc ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi ko xel. non baaxul baaxul produit chimique produit chimique moom. dara baaxu ci léegi nag euh, am na boo xam ne produit chimique mais damay dégg tam ñu koy wax mm-hmm. profité ji rek comme ñu ngi ci même feebar mm-hmm. dañuy dégg tam ñu ne nit ki buy buy consommé jinjeer daf koy wala petit cola petit cola yooyu day yokk cawar waaw waaw yo waaw yooyu moom fekkee da koy yokk dëggantaan mbaa mm-hmm. tam du indi ay ay conséquences non non yooyu du indi conséquence parce que produit naturel la boo xoolee pap euh, sunu maam yi dañ daan yeey guro cola guro af produit aphrodisiaque bi te te xoolal daaw leen def dara te fu ñu am ñoo xam fu ñu lekkee sax yeey guro donc gis nga ay moy bu la petit cola ah wa ko lay mel te non lay baxé te di ñoom daaw ji loolu daal dégg ñu tële di wàññi dara wa pour euh, ki bi tamit jinjeer bi tamit non la démé jinjeer yi petit cola yoy non seulement af baax na ci walu sey mais da lay hydrate yenen yenen da lay fajj lenen ay sa nak ay yenen fièvre xam nga gis nga xam nga kon yaa ngi moog produit mi gis nga contraire bi ki da lay fajal li indil la yenen fièvre ki mom da lay fajal li fajalaat la lenen ak lenen donc loolu tax produit naturel baax. comme loolu leer na waaw kay gis nga produit naturel looloo tax bu baax. donc bu defee yeneen médicaments yi tamit day day indiwaat impuissance sexuelle mooy comme médicament yi nga xamante ni ñi amee hypertension dañ koy utiliser. yooyu tamit en général boo ko yàggee jël. période bi muy jël médicaments yi. waaw muy muy muy néew kattan. waaw. donc gis nga yooyu yëpp da koy indiwaat léegi xam naa ne ñu bañ a ñëw ñu ñëw ci solution yi xam naa ni solution yi tey nag dañuy xaw a changé tuuti méthode parce que am na solution yoo xam nit ñi xam nañ leen mooy yi nga wax ni mooy ay jinjeer ak petit cola ak yoo demee noonu donc c'est bon yooyu avéré mais tey dama bëgg ci indi ci ñaari garab yoo xam ne dañoo xaw a weex li ma ci jublu nag euh, mooy bëgguma sax di faral di wax garab yu weex yi mais comme que nit ñi dañ koy utiliser lu bari pour ñu xam dose bi foofu laa ci mën a loolu laa ci mën a jubloo parce que tamit am na ñoo xam ne boo leen ko wax bu ñu ko déggee feneen dem utiliser ko mën nañoo am problème comprendre nga te lu baax ci ngóor la mais dafa dafa toxique benn bi kenn du ci ëppal kenn du ci ëppal te yenn saa ma gis fajkat yoo xam ne sax dañ ciy wax lu erreur yu ngan yoo xam ne comme que kiy faje ci def erreur asamalaaj ki fajul ki fajul te xamu ko donc benn bi mooy seen njeñ sëñ Dieng sëñ Dieng weex na sëñ Dieng dafa weex moom xam naa ko waaw mais ci faj moom euh, mi ngi noonu waaw day faj saan ak yëpp lu nekk ci biir sëñ Dieng dafa baax mais dafa baax ci dafa dafa ku weex la mais dafa baax ci garabu góor reenu sëñ Dieng hmm. mais danga nga koy sëñ Dieng waaw hmm. mais danga koy xooj da koy xooj tey boo amoon un litre benn reen bi doy na wala benn reen bi nga dagg ko hmm. benn reen am du xat la waaw doy na wala benn reen bi nga dagg ko ci pour un litre def ko si butéelu Evian def ko un litre. te parfois euh, li ci tane mooy soo naanee nga dolliwaat ndox. Hmm, d'accord bañ ko di bàyyi muy saf di dem. waaw parce que soo naanee bàyyi day gën a saf. Ah, di kiyaat mu gën saf mais boo naan dafa gaaw a sa yéex a sàlli waaw kay waaw. te boo ko fi bàyyee comme tey nga bàyyi ko nii di ci naan fekk suba ba ginnaaw suba day gën a safaat. léegi nag boo naanee kaas exemple. nga dolliwaat kaas gis nga. nga naanaat kaas dolliwaat kaas toujours butéel bi mën nay fees. léegi bu ko defee day day day kii do do wexaay bi day wàññeeku. donc euh, en général mag ñi dañ naan wax ni eh, ji eh, senjañ mooy euh, garabu góor. maanaam góor gu yor ñaari jabar wala ñetti soxna. senjañ moom da ciy baax foog nga koy xam. donc boobu baax na ci moom. beneen bi muy sàngool. sàngool. sàngool sàngool moom dafa xat. yenn saa yi moo dégg kenn sàngool sax dafa nekk garab goo xam ne kenn wër koo woon di jàngale ci télé wala ci rajo wala ci internet parce que ni mu waxee la mais xam nga comme que nit ñi xam nañ ko da ngay tase koo xam ne dama leen daanal demul wuti sàngool te day dagg xol. te waroo ko nit ku nit ku noonu rek quoi. waaw kay waaw kay da nga war a wax dose yi. dose yi sinon day dagg xol nit ku mën na cee naan léegi dee léegi. wala mën naan ko quelque temps mu dee. c'est grave c'est grave parce que dafa wex wex boo xamante ni eh, niñ ko utiliser mook bakis ñooy am. bakis xam naa waaw kay gis nga garab yooyu dafa nekk garab yoo xamante ni c'est des plantes toxiques. wex nañ nañ te toxique laa lay wax nii dégg nga boo gisee nag ñu bëri nag di rabal ragal garabu olof côté boobu la parce que am na plante yoo xam duñ la def dara mais am na yoo xamante ni moom boo leen jëlee lu bari dañ lay gaañ. xam nga mën nañoo dagg sa xol mën nañoo dagg sa lu nekk sa mbaq sax mën nañ ko dagg comprendre léegi bu ko defee nag yooyu nit ñi xam ko tamit comme que ñi ngi koy utiliser boo leen ko waxul it nit da leen koy wax ñu dem gaañ ci seen bopp kon nga wax leen dose yi bu ko defee sàngool moom boo ko jëlee boo boo jël kaasu ataaya exemple nga def ci ndox ba mu paase digg da ngay jël reen bi samp ko ci samp ko ci kaas bi boo ko ci sampee tuuti dindi naan mais kenn du ko xooj. moom doo jël ren boo ko defee yóbbu àllaaxira de. da nga jël kaasu ataaya. waaw def ci ndox. ndox kaasu ataaya bi nga def ko moom digg. ba mu digg rek doy waaw ren bi samp ko ci. samp ko ci waaw du mat 10 minutes par sax 10 minutes. dafa waaw <laughs> nga sempi rek nga naan ndox. boo bëggee boo bëggee naan defaat même nga def waaw. mais boo ko jëlee xooj ko fa surtout mu fanaan boo ko naan deux fois rek baax na suba ngoon rek deux baax na donc gis nga donc plante yoo xam dafa toxique donc yooyu dafay na xam yenn saa nga dégg ci internet bi ku naan la jëlal reenu sàngol wala nangama nangam wala bax non non waa kay loolu mooy problème bi donc dafa dafa dafa dafa kii donc moo tax garab gu nekk nit ki rek dañoo war xam dose bi wala yu demee noonu donc loolu mooy indi problème noonu la baaxee ci saan moom it moom sàngol boobu ah, comprendre nga mais wexaay bi foo ko toll foo ko natt ëpp na ko boo demee waalo dañ naan la garabu góor ñoom garabu góor lañ ko tuddee ah, non non ndax li mu baax ci góor kàttan sëy quoi ah, donc waaye mais man garab yi may joxe yooyu bokku ci man damay defar garabu impuissance sexuelle mais yooyu bokku ci waxoon naa la man yu weex koy du bokkul samay liggéey de yëpp éliminé naa leen rarement laay joxe garab bu waaw parce a respecté dose yi mu indi leen problème yaa ma ko joxoon waaw et bu waxee sax en patient bi nga jox ko garab wax du ko utiliser en ni ko waree te su ko utiliser wul du am résultat te bu am résultat faj bi amul tout njëriñ ah, <laughs> <laughs> waaw donc moo man bi ci bëri noonu lay demee ñu naan ko bu ko defee dañuy sawar sax te dina leen faj te mu am résultat kaw garab bu weex bi donc moo waaye waaw kay man noonu laay noonu laay liggéeyee tout les plantes toxiques dama koy éliminer ci samay samay garab mm. donte dinaa xam doos bi en général mais na da nga koy bàyyi noonu solo parce que dañuy def automédication. waaw kay da nga wax benn plante. Mhm. waxoo ñu dem def dose bu leen neex. ñu dem rek jënd wala nga wax leen dose ñu jàpp ne dose bi nga wax daal. dafay yéex day tuuti waaw gën a gaaw waaw waaw te fekk loolu baaxul conséquences yi mu lay indil mooy mooy mooy loolu donc waaye donc loolu la parce que parce que plant tamit moo posé na yam de am na ci yoo xam ne ni ni muy mën na la mën na rey. donc waaye donc. Euh, kon yaakaar naa loolu leer na wala. waaw muy euh, wax nga mbàkkis. Mhm. Euh, ni ñu koy utiliser wax nga tam sangool ni koy utiliser voilà. Mhm. am na beneen boo waxoon tam bu boo xam ne weex na ba kii woo. senjeñ lañ wax. noo xam senjeñ nga wax. waaw daan noo xam ne da ngaa tudd mbàkkis. <laughs> senjeñ ak ak sangool. ak sangool waaw. voilà Mbacke Samba léegi Mbacke tudd nañ ko mais bu ñëwuñul ci moom waaw moom te doonte am na yeneen propriété mais dugaluñ ko ci impuissance sexuelle bi d' ah, kon yaakaar naa loolu leer na leer na waaw effectivement waaw ñu comme dee nañu fi lu yàgg <laughs> waaw ñu jox la rendez-vous ba beneen wala ban semaine bi di ñëw ci yeneen vidéo ci beneen euh, malade yi moo xam ni dégg ñu si ñëwal détaillé ñu ko indi ñu si tam ay solution naturelle waaw léegi ba léegi tam ngeen xam ni tamit yii mu fi wax tam koo xam ni mënoo koo def reen yooyu mënoo koo dal sa bopp wala mënoo ko def wala buggoo ci def erreur wala daal yow wóoluwoo daal def ci def nu mu warewul nga dem directement ci moom numéro moo nekk ci suufu écran bi noonu nga koy gis ku ko woo téléphone di nga ko jot ku ko envoyé message whatsapp tam dina la répondre nga dem directement moom mu mu xool li méngoog yow mu joxal la ko boppam voilà donte jox na ay remède nit ñi mën a defal seen bopp ngir baaxe nit ñi waaye itam euh, dañ ne leen lu nekk tam nga dem ci ko xam. mooy mm. gën a wóor effectivement effectivement am solo. Mm-hmm. kon ñu bàyyi la professeur nga tàggatoo ba semaine bi. waaw sëñ ngi leen di nuyu di leen ziara di tàggu mbokk auditeurs yi ñu doon suivre yëpp ci sama xalaat TV. Mm. Euh, di leen joxaat dig daja rek ci beneen vidéo ci beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah.